am nañu romb loolu dañu ci yegg ci jaayante alal olofu saalum saalum yi tuddee ko gëroo dafa naa ñeneen ñi jamaale lañ ko tudd ah jamaale kooku du dagan noonoon ca loroon ca jalgati àqan kon daganut waaye nag wax ji du nekk wax ju ñuy maasale ne képp kuy labat rekk daganut keneen labat ci moom am na ay tolluwaay yu xam ne daggan na nit ki labat ci labatut keneen tolluwaay yooyu bi ci njëkk mooy nga yëg ne diw kat moo doon labat waaye gàntal nañ ko doonte moom nangu da bàyyi mu ngi dundee yaakaar foog ne dañoo gàntal nii waaye danañu nangu ëllëg waaye yow wér na la ne gàntal nañ ko bu boobaa dagan na yow nga labat walla nga yëg ne ndaw si mu ngi tolloogum ci nanguwut bañut nangoogut bañagut foofa itam dagan na nga labal ñetteel ba waa ji doon labat gàntalut maanaam nanguloon nañ ko ku góor ke nanguloon nañ ko waaye moom moo geestu benn waayam mu ne ko man de diw maa ko doon labat waaye daal e, gis naa ne soo ko bëggee man ngaa dem labat ko ma doon naa ko labat waxoon naa ñoom ba déggoon nañ waaye soo ko bëggee man ngaa dem nga labat ko yii su amee bu boobaa daggan na nit ki labat ci kaw geneen labat waaye bu dul yi du dagan beneen tomb bi mooy waa ji labat na daa kooral nañ ko ñu ngi xaar bis bu muy ñëw takk waaye saawaay dem ba yàgg mu bëgg génn ci labat léeg-léeg mën naa jóge ci ku góor ki léeg-léeg mën naa jóge ku ci ku jigéen ki walla ay mbokkam kon lan mooy àtte dellu gannaaw ci ak labat gannaaw ba déggoo amee nañu xam ne labat ak xàcce la ak xàcce la ci wax juñ waxoon ba déggoo ci xàcce googu def ko ci lu dul benn sabab dafa dàquwante ak jikkoy lislaam dafa dàquwante ak matale kóllëre dafa dàquwante ak sottal ab dig boo dig sa mbokk mën naa yegg sax nag ci jikkoy naafeq ndax xam nga ne bokk na ci jikkoy naafeq isaa waada axlafa bu digee day wuute ca la mu digge woon rawatina nag su fekkee ne dellu gannaaw googa yàqute daf cee am ay lor daf cee am léeg-léeg lor yu xam ne lori matériel lay doon xasatan bu fekkee ne delloo gannaaw gi ci wàllu ndaw sa la jóge moo xam moom ci boppam wala kilifaam xanaa nag li jar a xam mooy labat du ab pas-pas ak kóllëre la ak dig la waaye du pas-pas loolu tax na amul warugar wuy war kenn ca ñaari labat ñaar ña bëggoon a sëy dégg nga ma wax de ñaar ña bëggoon a sëy dama daw baatu ñaar ñuy labatante ndax kalimat taxaatub labatante kalima boobu amul ci fiqhul islaam yi fiqhul islaam yi ñetti baat moo ci am kuy labat ku ñuy labat kiñ koy labatee kii labat mooy góor gi ki muy labat mooy ndaw si mu bëgg jabar kim koy labatee du ci boppam waaye ci kilifaam la koy labatee kon labatante amut wa bittaali li ngeen di yëg ci li ñu tuddee code de la famille bu Sénégal ne ñaar ñuy labatante ba diggante bu kenn ki delloo gannaaw euh, mu mën a jur euh, soog ci keneen ki kon war na joxe dommages intérêts loolu du lislaam loolu du lislaam waaye nag ma ne loru matériel mën na caa am su fekkee ne surtout dellu gannaaw gi ci ndaw si la bàyyi ko wala ci wàllu ndaw si naam kenn ku nekk ci ñoom ñaar mën na delloo gannaaw waaye la gën mooy bañ a dellu gannaaw su fekkee sabab bu waral loolu amul mu des nag dellu gannaaw am na te waa ji jotoon na joxe can wala joxewut can waaye am na ay kado yu mu joxe woon am na ay mbir yu mu maye woon fii dañu naan lépp lu xam ne waa ji joxe woon na ko te duhut luy sànku dañ ko koy delloo su ma nee duhut luy sànku ñëwoon na fa ak benn mbuusu pom lekk nañ ko jeex na bu kenn du ko fay la waaye joxoon na joxe woon na fa xaalis nañ ko ko delloo am na ay bopp piis yu mu fa joxe woon kenn ñawagu ko nañ ko ko delloo joxe woon na fa ab lal wala ab rajo wala ab montor nañ ko ko delloo mbooleem yi nga xam ne waa ji joxe woon na ko lépp lu ci xam ne yeggut ci sànq ay lam la ay jaaru la ak yu ni mel yooya yàquwut du piis bu ñu ñaw du yëre bu bees bu ñu sol ba xam ne tilim na fóot nañ ko du yooya yooya dañ koy delloo Euh, bu dee lenn ci borom xam-xam yi fiq yi ñoom yegg nañ ci ne su fekkee dellu gannaaw gi ci ku góor ki la jógee kooka moom xanaa luñ ko delloo waaye sañta laaj dara su fekkee ne dellu gannaaw gi ci ku jigéen ki la jóge kooka moom même lañ ko joxoon su fekkee des na na ko delloo su fekkee desatu fa it na nañ ko fay am na ci fuqaha yu ñu wax loolu ne góor gi lañu naan la nga joxe woon lu ci sànkoogu ñu delloo la waaye jigéen ji moom su fekkee moo dellu gannaaw lañ ko joxoon même bu sànkoon na ko fay ah olof yi lan la ñu waxoon ku njëkk jukki ku njëkk jukki ba ca ku njëkk jukki ba ca defe naa xale yu bari dégguñu wolof yooyu jukki mooy se seppi ku génnee su fekkee góor gi moo njëkk génnee loxoom ci mbir mi la mu ca rotaloon na ko fa bàyyi mais su fekkee jigéen ñi moo njëkk a seppi loxoom nag ci mbir mi kon moom itam lépp lu ñëwoon ci moom na ko bàyyee waa moom lañuy wax ku njëkk a jukki ba ca euh, su fekkee ne labat am na sàmm nañ ci teggiin yii dara desul nag ñu war a sóobu ci pas-pasu sëy nañu xam ne sëy ci sharia am na ay sarta yu ñuy considéré ne ca la ñuy nangoo ne sëy am na su fekkee loola manqué na wala mu ñàkk même buñ ko tuddee sëy sharia moom dafa naan du sëy fa moom am na ci yu xam ne mboole borom xam-xam yi bokk nañ ca dëppoo am na ci yu xam ne ñenn ñoo ko wax waaye bu ñu xoolee dañuy gis ne yu fondamentaux yi mooy yi ñu bokk dëppoo tax na foofu la ñuy gën a euh, dëgëral suñu wax yooyu bi ci njëkk mooy duut baaraam ki ngay takk bu ma ne dut baaraam mooy distinguer ko ci biir kër gi ki ngay takk diw la tudd kiñ lay may diw la tudd doomi diw xam ngeen fi neexut waaye euh, ñun alfulaar yi ñoo ci xaw a am càggante tuuti ñun ñooy ñëw ñu ne mi ñaago maa dee bu mu ne mi tottu maa dee mi ñaaguma démb kan ngay ñaan ci kër gi mi ñaaguma kaa rek fokk nga ne maa ngi lay ñaan Fatima wala Aïsa walla Roqe wala Zeynab kër gi ñetti jigéen ñu amagul jëkkër ñoo fa nekk ñeent ëpp na ko nga ñëw rek ne ko ñaan naa la jabar mu ne may naa la jabar kan nga ko ñaan kan la la may kon nga déggee ci ne sama doom yu jigéen yi may naa la ci kenn loolu du wér sa doom yu jigéen yi ñaan naa la ci kenn loolu du wér gis ngeen euh, góor gu baax googa ca Madyan te Muusa daje woon ak doomam ya ñuy nàndal ba mu bëggee may Muusa jabar daf ko duut baaram inni uridu an unkixaka ihda ibnatayya haatayni ñaari doom yu ñu jàkkarloo la ñu ngi nii kenn ci laa la bëgg a may waxoon may naa la de kenn ci laa la bëgg a may lu tax bu ne kenn ci laa la bëgg a may tànn dal di mën a am kan la Moussa ne kii laa bëgg nga may ma man daal ñaar ñii bëgg naa la cee may kenn ma ne man de kii laa bëgg nga may ma ma ne may naa la kooku kon li njëkk dañu leeral ku góor ki ne moom mi bëgg jabar diw sàngam la rawatina surtout su fekkee fekkewut takk ga su fekkewut takk gi surtout kooku danañu leeral ne diw sàngam mooy ñaan jabar danañu leeral it ne diw sàngam lañ ko may amma bu ñu mbëmbëstanee wax ji mu nekk lu ñu réere du dagan bal dama naan du wér pas-pas boobu wérut ñaareelu tomb ci sarta yi mooy déggoo ak ñaari way dencante yi maanaa góor gi ñu bëgg a may jabar na nangu ñu may ko diw sàngam jigéen ji ñu bëgg a maye moom it na d'accord ñu may ko diw sàngam kon ñu xamee ci ne sëyub forcé ci lislaam du wér sëyub ñetti bàmmeel wérul ci lislaam de xam ngeen sëyu ñetti bàmmeel ah mooy su deexu deexu la deexu ma danga ko séyal ah diw de laa la bëggoon a may mu ne ah bàyyi bëgguma ko de mu ne danga ko séyal nag mu ne bàyyi bëgguma ko de mu ne ma ni su deexu deexu la deexu ma danga ko séyal yaa xii bu kii du sëyu lislaam lislaam xamul sëyu ñetti ñetti bàmmeel kon sëy sarta la ca muy sarta ñaareel bi mooy ne ndaw si dana bëgg ku góor ki dana bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sëy bu xam ne mbëggeel am na ca bañ consommé ko ñu dem ba yàgg mbëggeel jeex ca yonent bi sallallahu alayhi tas na ko ndaw si ñëw ne ko man kat maay diw doomi diw mu ne ko xam naa la mu ne ko diw doomi diw moo ma doon denc sama borom kër mu ne ko xam naa ko mu ne ko yonte bis na tey doot euh, doot sama digganteeg moom sikkuma ko ci jikko sikkuma ko ci diina waaye sama cofeel moo jeex ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa woo waa ji mu ñëw fekk bi mu waxee loolu nee na ko ndaw si ah toolu tànnal ma kan la la canee woon mu ne ko toolam delloo naa ko ko na na jël bu bu ko neexee ñu woo waa ji mu ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw si loo wax nga ne ndaw si waxaat la mu waxoon yonent bi ne ko toolu tàndarmaam na mu ne ko ma delloo ko ko yonent bi ne waa ji kon jëlal sa toolu tàndarma nga bàyyi ko ci sëy bu xam ne cofeel moo ko façon ñu consommé ko itam dem ba yàgg mbëggeel jeex yonent bi sallallahu alayhi dindi ko kon nan la ñuy fasee sëy bu xam ne mbëggeel lalu ko yàlla subhanahu wa bi muy wax kéemtaani sëy wax na wa jaala baynakum lu lan la njëkk a tudd balaa dara mawadda wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma gis nga ñaar yooyu yàlla tudd ñooy saxal bu njëkk ba bu njëkk mooy lan li taskunu ilayha nga mën a am dallu fa moom lan mooy tax ndaw si nekk dallukaay ci yow nga nekk dallukaay ci moom mooy parce que mawadda am na cofeel am na yërmande am bu cofeel amee dalloo wante am yërmante am moo tax yontu bi sallallahu noonu euh, jigéen ju sëyut duñ ko maye lu dul ba ñu sàppoo ndigalam ab jeeg doo ko maye lu dul ba tanga ko sàkkoo ndigal mu wax ci làmmiñam ne mayee ma d'accord bu dee jànqit deefu ko maye lu dul ba ko yëgloo ñu ne ko yonent bi boo ko yëgloo lan moo lay won ne jox na la ndigal pour nga maye ko mu ne mu noppi noppim mooy wane ne joxe la ndigal ñu maye ko loola ba jànq di jànq bi bi jigéen di jigéen laa wax dañu feesoon dell ak kersa kersa gu xam ne boo leen waxee ki nga leen bëgg a may sax danañu rus a wax d'accord nag buñ d'accordu nag jigéen moom boo ko songee ci tedd ngaay boppam rek mu fipp bu d'accordu dana ah tee nga seetal ma keneen waaye bu bu noppee d'accord na loolu yonent bi saa sallam waxoon waaye defe naa suñ jamono moom romb na foofu ah waaye kon nga yëg ne doo ko maye te fekk loolu amul mu des nag ndaw si d'accord moo xam jeeg bi la moo xam jànq bi la ñetteelu tomb bi mooy ne kilifa mun sa ñàkk kilifa bu ñu ne kilifa lu ñu ci jublu mooy kilifa ndaw si kilifa ga nag ku góor ka lañ wax dem jullit itam tey gor itam tey mukallaf yooyu lañ cee sartoo jullit la du yéeféer góor la du jaam mu kallaf la kilifa googu ka yeey nga xam ne bu taxawee keneen mënta doon kilifa mooy bàyyi ji jur bàyyi jur su di su fekkee mu ngi dund nga bëgg jabar moo mayut la keneen ku la may amoo jabar tuddee leen ko nag nu ngeen ko tuddee dem nañ ca sëriñ ba moo ñu maye dem nañ ca maire ba foofu lañ ñu maye dem naa ci élimaan sàngam foofu foofa lañ ma maye sëy amu am na nag ñu ci xereñ loolu maa ngi koy dénka maa ngi koy xippuwaale bët surtout imam alasan ñun imaam yi ñu gën a am natt boobu yenoo nañ sëy wakaam indil ma ko fii ci dix set bëgg ma takk ko wakam laa wax de ak lay ilimaan ak lay jàkk yëpp ci wakam ñu ne naa ko nañ ma ko indil dix-sept ma takk ko ma ne waaw ana baay ji ñu ne ma baay ji dafa feebar feebar bu metti bu mel nangam ak nangam bu garaaw ah, ndax dafa am cancer moom mënul sax kii ma ne waaw ah kum jox ndigal nag ñu ne ah, yaay ji d'accord na ci ndaw si d'accord na ci ah, am na benn waay sax bu xam ne moom moom la waay ji waxoon ànd na ci ma ne ah waaw góor gi bëgg jabar ñëwaale na moom ci maye gi ma woo benn waay ci mbooloo mi ma ne diw àndal ak diw ngeen ànd ak diw ngeen dem wakaam mu wan leen bàyyi ndaw si ngeen dégg ci làmmiñam ne moom moo joxe ndigal ci diw sàngam nañ may doomam nañ may doom diw sàngam ñu déparé ci jàkka yi defuñu quinze minutes ñu dellu si waat ma ay xanaa demu leen wakaam ñu ne ah góor gi bëggoon kat moo moo ñu kar ci yoon wi ne bu ñu demee danañu nàngam danañu nàngam menace leen menace yu rëy ñu wàññeeku ñëw lii dund naa ko fii ci unité 17 loolu la lay tegtale mooy ne waajur wa àndut ca waaye nag bëggoon nañ maa sëlmal ba dugal ma ci kàmb kon loolu nañ ko bàyyi xel fii ma waxaale ne li ngeen di dégg ñaare ci waxi wolof yi ñu naan jigéen ju sëy ba dellusi si dafa gàddu as kumbam fu mu gisee kum bëgganteet ku ko mayee dana baax déedéet du dëgg yonent bi sallallahu dafa ne la nikaaxa illa bi wali sëy amut wérut fosuwut su fekkee ne kilifa mayewu ko kilifaay ndaw si mayewu ko séeréer yi nag yéen bàyyi leen xel waxtaan nañu nijaaye ba déggoo nañu buñ demee ñu may ñu du lislaam de nijaay yi bu fekkee ne baay joxuñ leen ndigal bu ñu mayee du wér nijaay yi bu fekkee bàyyi yi joxuñ leen ndigal buñ mayee du wér Umar ibn Xataab radiallahu anhu ngir ñu xam ne kilifa jeeg ak jànq ñoo ci yem dafa am ñaari mbooloo jullit yu génn ñi génne fii ñu la génne ñu daje yoon dajale leen mbooloo mi am na jigéen ju ca nekk ju xam ne ku mosoon a sëy la amul jëkkër léegi mbooloo bi am na ci góor gu ca nekk gu xam ne ku soxla woon jabar la ñu waxtaan ba déggoo kenn ci biir mbooloo mi taxaw taxawaayu kilifa maye ko ñu ñëw Madina xis xew-xew bi yegg si ca Omar ibn Xattaab boolewu ca wax waaja maye woon ak kañ may ñoom ñaar ñu la boole duma ba seen yaram tàng sëy booba waxam taxu foofu kon laa nikaaha illa bi wali euh, moo tax ci beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne bépp jigéen bu xam ne sëy na ci lu dul ndigalu kilifaam booba sëy baatil la booba sëy neen la takk leen baat bi bu baax siixa siixa bi ayuma mraatin ndax loolu dafa génne jeeg wala ñan ayuma mraatin nakaxat bi gayri isni waliyiha fa nikaaxuha baatil jigéen ju mën a doon ju xam ne sëy na ci lu dul ndigalu kilifaam sëy booba neen la kilifa gi bu baay ji dund moom la bu fekkee baay dundut nag ña gën a jegeñ baay ca geño ga ña bokk ak baay ndey ak baay wala ña bokk ak baay baay wala sax déedéet baay dundut waaye ku bokk ak ndaw si benn baay ti mat mu kalaf dib jullit mu nga fa kooka man ko maye wala déedéet ndaw si am na doom ju xam ne mat na mu kalaf dafay sëyiwaat doom ñi mën na ko maye waaye nag fokk kilifa waaye yii yépp mu ngi ñu ngi koy wax bu bàyyi dundut waaye bu bàyyi dundut keneen du may su ko defee su ma doon joxee priorité ci kilifteef yooyu nii laa koy tëddale jëlee ko ci nu ko boroom xam-xam yi tërale ñu ne priorité bi mooy bàyyi su fa nekkut ki bokk ak ndaw si ndey ak bàyyi su fekkee loola amut ku bokk ndaw si baay su loola su loola amut maam ji bàyyi bàyyi su loola amut su doom amee wa hakaza kon nu ñu gën a jegeñaantee ndaw si noonu lañu ñu ëppantee kilifte waaye nag yi ma wax ñu sartawoo ko ci mooy day nekk góor day nekk borom xel du doon dof day majeur day nekk gor day dëppoog diina day dëppoog diina ndaw si bi maana su ndaw si doon julit kilifa gi dib yéeféer foofa kilifteef gi day tox la wilayata li kafirin ala muslim booba mooy taxaw qaayida ba mooy taxaw yéeféer du am kilifteef ci kaw jullit bu boobaa kilifteef gi day taxaw ci ku gën a sori bu fekkee loola yépp amu fa foofa la al wilaaya bu boobaa ci elimaanu jàkka muy njiital jullit mu mën ko may naka noonu kiliftiif yi ma wax borom xam-xam yi am nañu xëccu ci kilifteefu baay dana toxu su fekkee ne du ko màndu maanaam su def faase foofu xëccoo la waaye la gën a wér mooy ndéem jullit la ndéem jullit la du ñu jël ci moom kilifteefam fekk yeggut ci fis du ma la mayee boobu moom zulm la ci kaw ndaw si directement lu mu séq ak ndaw si du ma la mayee ak ku la mën a bëgg du ma ko may loola dana toxal kilifteef gi waaye bu génnee nag baay moom keneen ku mën a doon mandu dañ ko ci sartuwaale bu mandu nga amul rek ñu toxal ko ci keneen ci kilifa yi nga xam ne ñoo ko ñoo am kilifteef ci ndaw si tomb ñeenteel bi ci sarta yooyu mooy seede seede lan lañ jublu ci seede mooy ñu xam ne dañuy seede pas-pasu sëy bi ngir lan ngir sàmm aw askan ëllëg sàmm askan ci ñaari mbir sàmm askan ci ñu askanee góor gi doom jum jurut wala sàmm askan ci góor gi meer miim doom ju xam ne moo ko jur naka bu ñu façon ab sëy wutal nañ ko ay seede sëy bi daw ñeenti weer doom juddu kan moo koy kan moo koy jurale góor googu juru ko kon sëy bi war na am seede fañ ko fase bu doom juddu woon ci diggante bu tollu noonu góor mën a wax ne doom ji juruma ko ñu ne déet ti sa jabar jur ko mu ne waaye juruma ko ndax bi ñu sëyee ak léegi nanga mi weer la diw ak diw ak diw fekkee war nañ pas-pasu sëy ba ñu woo leen ñu ne fekkee ngeen pas-pas bi ñu ne waaw boobaa ak léegi ñaata weer la ñu ne ñeenti weer la ñu ne ay la yoween wax ñu dëgg jurul doom kon sàmm askan dafa feeñ foofu ñaareel ba góor gi may nañ ko jabar am na jabar ji lu mat juróom benn weer jëm koow ndaw si am doom mu ne doom ji juruma ko juruma ko ki ba ma ko takkee léegi toll ci juróom benn weer doom ndaw si ne moo ko de ñu ne kan ñan ñoo fi seede sëy bi ñu ne diw ak diw ak diw biñ sëyeeg léegi nu mu toll mu ne mat na juróom benn weer moo ko jur moo de yàlla subhanahu wa taala noonu xamluhu wa fisaaluhu thalathuna shahra ëmb bi ak feral gi fanweeri weer fale mu wax ne wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaa waajur yi yaay yi mën nañuy nàmpal seeni doom ñaari at yu mat sëkk ci ki bëgg a matale am nàmpal ñaari weer ñaari at yu mat sëkk muy ñaar fukki weer ak ñeent soo ko diggee soo ko dindee ci salaasuna shahran lu cee juróom benn weer moo cee kon ëmbëb juróom benn weer góor du sañu ko miin waaye nag ku seede amut génn kay mën na nekk kon sëy bi fokk pour mu wér day am seede euh, te xam ngeen ne mbir mu garaaw la nit ki miim doom ndax mboolem xàq yu aju ci diggante waajuram jureel dafay daldi dàq waaye naka noonu it ñu jurloo nit kum jurul musiba yu rëy la ndax àqi ndono àq yi aju ci jureel ak doom yëpp daf cay tegu encore waaye nag seede soosu ndax ku ñëw rekk mën a seede déedéet seede dafa am ay sarta yuy tax mu wér ba ca njëkk mooy na nekk ñaar na nekk ñaari góor lum néew néew lu ko def wax yonente bi salaa sallam jamu ne laa nikaaha illa bi waliyin wa shaahiday adl ab sëy du wér lu dul ci kilifa ak ñaari seede yu mu su ko defee ñaareelu sart bi ñuy daal di teg mooy baat boobu yonent bi tuddumtu mooy màndu màndu nag day nekk ne borom yàlla suturaal na ko bàkkaar yu mag yi xamaluñ ko lum ciy fësal yàlla xama yàlla suturaal na ko siiwut ci lenn ci bàkkaar yu mag yi siiwut ci dox tànk jaaxaan ci jigéen ñi siiwut ci gàddu làmmiñam jigéen ñi koy romb mu am tuuma yi muy teg ci ñoom siiwut ci di jël alali jàmbur yi siiwut ci nekk ab siiwut ci nekk ku bon ci ay waajuram siiwut ci ku ñu naan kooku waxam mat dafayee bor ndax bari fen siiwut ci loolu siiwut ci naanum sàngara siiwulit ci karta boobu nag kon ñii xoos pee mi nañ ci bàyyi xel kon kuy xoos pee du mat seede de pee mi karta la wala du karta karta la ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne day def nit faasiq ba dootu mat seede ci lislaam ca la bokk kon maandu fokk mu am ci ñetteel ba ñu nekk mu kallaf ñoom seede yooyu itam nekk mu kallaf laa bëgg a wax seen xel mat na ñeenteel ba mooy ñu nekk góor ñu nekk góor juróomeel ba mooy dañuy nekk ñuy dégg duñ nekk ay tëx parce que da ngaa seede dafa am ñaar ñii luñ taxaw wax nga seede ne loola ñu taxaw wax nàngam la seede nga ko kon loolu ab tëx manu ko ab muuma manu ko dañuy dégg juróomeel ba nawle seede si na nekk nawle lu ma jublu ci nawle mooy nañu bokk diina dama jub ne seede si déedéet ñii takk laa bëgg a wax ñii sëy laa bëgg a wax nañu nekk nawle nañu bokk diina nañu yem itam ci wàllu jikko wàllu cër ci société bi loolu ñu ngi koy wax ci bi gor ak jaam di am nañ ko ci séddaale su fekkee ne kenn ca ñoom ñaar nekk na leneen la te nëbb ko buñ ko xamee loola sart la ci fecc sëy bi loola sart la ci tas sëy bi bu booba góor gi jaam la daf koo nëbboon feeñ na ne jaam la loola sart la ci sëy bi tas mu ñàkk alalam ndaw si jaam la daf koo nëbboon sabab la ci góor gi bàyyi ko su bëggu la wéeg moom waaye itam nag sart la ci wàllu fegu góor gu xam ne xam nañ ko ci caay-caay xam nañ ko ci kàccoor xam nañ ko ci bàyyi julli xam nañ ko ci njubadi kooka kenn waru koy may jigéen ju xam ne ju fegu la ju aar boppam la ju sàmm la ju euh, yëg diinaam la yàlla subhanahu wa taala mu ne afa man kaana muminan ka man kaana fasiqa laa yastawun ku gëm yàlla ku xam ne kàccoor la kàccoor nag ngeen xam ne waxuñu yéefar la kàccoor mooy ci askanoo lislaam te am mbon mbon yu mag yi ngeen dégg ma wax amma nag nawle ci yeneen xeet yu dut yi ngeen dégg ma wax ah, ah. lislaam nawleew diina ak jikko la xool nawleew diina ak ko ak bi ngeen dégg ma waxoon ci gore ak jàmm waaye yeneen nawle yi ñuy wax loola lislaam xamu ko naka noonu ndaw si nga xam ne moom la waa ji labat bëgg koo takk bu mu nekk kojug armal ci góor gi ci benn sabab ci sabab yi su ma ne benn sabab ci sabab yi mooy sababu askan walla sababu gorowante wala sababu nàmpal ñetti sabab yi ci la sëy di xaraame sababu askan waxoon naa ko ci ya ngay wax ñoo lu ngeen bokk nga ne maag moom ñoo maag baayam ñoo maag maamam ñoo ñoo bokk nangam sababu askan boobu ki ñuy labat bum ko doon benn ñaareel ba sababu gorowante sababu gorowante bu nekk sa yaayi jabar bu mu nekk yaayi sa yaayi jabar maanaam bu nekk maami jabar ju sa yaayi jabar bu mu nekk ku bokk ak sa jabar ndey wala bàyyi bu mu nekk bàjjanam bu bokk ak bàyyam ndey wala bàyyi bu mu nekk itam taantaam ju bokk ak yaayam ndey wala bàyyi kenn ci ñii daganut la araamal diggante ba ak warowante la am na ca nag araam yu xam ne ba faww la am na ca araam yu xam ne yu temporel la gannaaw gi dana soppeeku masalan bàjjanam euh, sëram tantaam ñii ñu ngi xaraam li feeg yaa ngi koy denc waaye soo teqale wa moom sañ ko takk amma bu dee yaay ja bu dee maam ja ñooñu dañu xaram ba faaw loolu ma wax moom lay waxit ca nàmpaale ñetteelu sababu xaram bi mooy nàmpaale bokk ndaw si benn jigéen bu leen nàmpal kooku moom day xaram yaayam ji ko jur day xaraam mbokkam ya mbokkandey walla bàyyi dañu xaram ci yow ay bàjjanam noonu ay tàntam noonu ndax léegi yéen a ko bokk moo tax yonent bi tënk ko ci genn kàddu mu ne nàmpaale day xaraamal li askan di xaraamal kon ndaw si ñuy takk bu lenn ci yooyu nekk ci moom su fekkee yi yépp daje na lu des fas rek moo des léegi walla déet nan la ñuy fasee sëy bokk na ci mbir yi lislaam gën a yombal ba yegg na ci boroom xam-xam yi tënk ko ci ne wépp doxalin yépp kàddu yu xam ne milieu bañ koy defee loola lañ considéré ne mooy fasub sëy baat yooyu suñ ko jëfandikoo day wér moo tax ñu ne wa yasixu alzawaaj bi kulli lafdin muctabarin orfan yadullu alayhi kama yasixu bi ayi lugatin kaan dafay wér ci bépp baat bu xam ne ca aadaay ñooña loola la ñu considéré ne mooy ab fas sëy ak làmmiñ wuñ ko mën a waxee loola day dal di waaye na fokk ñaari am ci mayante ak nangu wala ñaanante ak mayante ak nangu lan mooy loolu mooy ne kilifa ndaw si mun na jël mu mubaadara bi moom mu njëkk a wax ku góor ki ne ko may naa la sama doom diw sàngam ku góor ki ne ko nangu naa sa diw sàngam mi ma may yeex na fos na loola amut ku góor ki jël mubaadara bi ne kilifa ak ndaw maa ngi lay ñaan nga may ma sa doom diw sàngam nga takkal ma sa doom noo ko waxee sa doom diw sàngam mu ne may naa la sama doom diw sàngam mu ne nangu naa li nga ma may mu dal di fasu kon yii su xasee am sëy ba fosu na may naa la ak dénk naa la ak en tant baatu dénk ca waxi ñooña ak sëy loola ca jublu buñ ko jëfandikoo day wér denc loo naa la day wér su pas-pas bi amee jëkkër ak jabar ñoo fa nekk lépp lu araamoon ci diggante góor ak jigéen ngir ñàkk sëy fii la commencé daggan waaye ngir yëg ne bañ commencé di wax ci muhaadara bi ba léegi mboolem fi ñu fi jaar ba bi ñuy yegg si fii taxut ndaw si daggan ci góor gi mu laalante ak moom laal laa wax de laalante waxuma ay joxante loxo ay accolade ak yooyu déedéet bi mu nekkee jabar nag am na lu ñu sunnaal foofa te mooy tomb bi ñuy jeexale mooy lu tudd alwalima ak céetale céetale ci lislaam ñam la xew la lu xam ne ñenn ci borom xam-xam yi dañu ne nit ki mën na koo def lu jiitu muy tëdd ak soxnaam am ñu ne déedéet gannaaw bi mu tëddee moom la koy def borom xam-xam yi dañu ne foofa lislaam daf fa yaatal gannaaw ndaw si ñëw na nekk soxna su ñëw ci kër boroom këram wàcc si fa fu ko fi waa ji defee léegi wér na waaye nag sunna la su feddle ko suñu yaakaar it barke sunna la su suñu yaakaar it barke euh, balaa may wéy yaakaar naa ne dana am ko wax ne affaire xutba yeeg yooyu yëpp waxuma ci wallahi eh, xutba sunna la ci sëy su amee baax na yaakaar nañ ca barke yonent bi saa sallam daan ko def waaye su amul woon it te yii ma wax am sëy ba fasu na sëy ba fasu na léegi céet gi am na lan mooy céet mooy ñam wi ma wax dañ caa sunnaal ñaari mbir wala ma ne dañ caa sunnaal leen na warale ca leneen dañoo sunnaal ci ki jël jabar bi soxnaam yegsee ci néegam rek mu teg loxoom ci fi sax kawar gi commencé sax ne allahumma inni asaluka xayraha wa xayra ma jabaltaha alay wa ausu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alay yàlla maa ngi lay ñaan yiwu ndaw si ak yibu yiw win ko bindaale maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ayu ndaw si ak ay wuñ ko bindaale dalal ko mu toog miinu ko Euh, da ngeen di gis léeg-léeg ceet am ngeen gis mag ñi kurkuri dem wuti benn butéelu meew ñëw xeeli leen walla nàngam bu ñu wax ne loolu bi daala de déedéet loolu bokk na ci sunu yonent bi salaa sallam miinu ko ci ñam ci lu ñu naan suñu Aïsa radiallahu anha nee na biñ ma jébbale yonent bi salaa sallam mi ma inde ci néegam maa ngi ñi ma gunge ñu ngi toog yonent bi sallallahu alayhi dafa <coughs> jël këllu meew mu naan après mu jox ma ma ne ma naanal ma naan mën a joxal sa àndandoor yi ñu naan ñooñu ñu ne ah doy nañu ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bu leen boole xiif ak bàkkaar bu leen boole xiif ak bàkkaar ah su ngeen aaj suñu aajo wooti naanuñ xiifuñu ñu ne amuñ ci ajo te am nañ ci aajo amuñu bàkkaaru fen ah mu ne bu leen boole xiif ak bàkkaar kon li ma bëgg a wax yooyu bokk na ci sun na bi mu yegsee nga dalal ko ci yu mel ni bu ngeen seetloo yonent bi sallallahu boole na miinu ci lu ñuy naan waaye miinu waare itam ci kaf ndax kàddu googu mu wax amul amul werante lu bon bon asree dana ci juddu su fekkee ne wéet na ak soxnaam balaa ñuy tëdd na jàpp digal ko mu jàpp ñu bokk julli donte ñaari ràkk yoo xam ne góor gi moo koy jiitu naka noonu buñ demee ci lal bi itam na ko ñemeloo miin loo ko boppam balaa mooy àgg fu muy àgg yii su ma ko waxee dana am ku ne waaw mu ngi mën ak yow da wax rek góor gi ndaw si fi mu ñëwee ci kër góor gi waaye lu ko jëlee seen kër ba indi ko ci kër góor gi maanaam la foofu dafa war a xumb foofu dafa war a xumb nañ woy nañ woy ne nañ neexal nañ xumbaal mbokk yi bisu ceeb du bisu dëj loolu nag ñu bari ci ñun ñi wuyoo sunna dañ ci sàggan te nga waaye lii du sunna waay ah diw daal ci dafa amoon benn dafa jël ci jabar mais ci euh, oustaz diw sàng moo fa def conférence bu am solo waaw góor ñi ñu nga fële jigéen ñaa nga fële wax dëgg waxtaan yi am na solo laaj yi am na solo maa ngi la mbokki bis boobu bu fa waxtaan bi am itam bàyyi leen jigéen ñi ñu wéet tëgg fecc bu leen neexee bàyyi leen leen ñu wëy almuhim mu góor ñeeg jigéen ñi bu jaxasoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu yaay Aïsa radiallahu anha ànd na ci ngungeem céet ñibbisi yonent bi ne ko ah yan xanaa gunge wala leen séet ba dem nañ ci gungeem séet mu ne ko ah kay mu ne ko ah yéen teel ngeen a ñëw de xanaa woyu woyu leen mu ne ah déedéet woyu ñu de mu ne dem ngeen woy waay waa ansaar dañoo bëgg xumbeen dem leen ngeen woyal leen yonent bi yemul ci loolu waaye mu jàngaleen sax buñ demee lu ñuy woy mu ne def ne bu ngeen demee ngeen ne ataynaakum ataynaakum fa xayuuna nuxayikum walawla almahabatu sam'a lam nuxalli biwaadikum ah walawla zahabu alaxmar lam nuxalli biwaadikum walawla alxabatu sawla lam tasmun asaarikum ñëwal nañu leen ñëwal nañu leen nayu leen ñu nayu nañu leen bu doon tewu doon ak mbëggeel gu tëx kon duñu ñëw ci seen kar gi bu doon tewu doon ak wurus bu xonq boobu ngeen jox ñu duñ ñëw seen kar gi bu doon tewu doon ak pepp bu ñuul boobu lantin lay wax bu doon tewu pepp bu ñuul boobu seen jànq yi duñu am yaram ay wa lu lu ci nekk kàddu yi ñu xubalan ci lu laaban ci yéen a ngi dégg ñaari suñu kii euh, jigéen ñi surtout ci wàllu saalum laa ko gën a miine yaara bi yaara bi ana yaara bi yaara bi yàlla na la jàmm tàcco yaara bi ah dañ koy neexantal ak ñaan la maanaam yaa rabbi yaa rabban mooy yaa rabb yaa rabbana yaa rabb yaa rabbana loolu la ñu wax yàlla na la jàmm tàcc yàlla na la jàmm teeroo fi nga jëm yow ndaw si boo booleeg léeg-léeg di ko euh, di ko encouragé waale naan ko doomi gaynde jaay du ragal yi maanaam demal te ànd fit doomi gaynde ga waroo ragal wàññiwut dara naka noonu ñuy waxaale ci seen wax di dénkaale jëkkër ji gune laa gune laa yërëmal ti suturaal gune la bul dóor bul saaga gune la ah ñu ngi dénkaale jëkkër ji way yu mel ni lu tax ngeen koy tere bu ñu naan du sunna yow mi ne du sunna yaa nekkul ci sunna fokk ñu xam mbokk yi yow mi naan du sunna yow yaa nekkul ci sunna bis bu li kulli maqaamin maqaal kon ñëwin wi bu ñu rumb rumbi ay tànk mel na ñuy yenu ab néew déedéet nañ xumbal ba ñu xam ne ab siir la ñu naka noonu ci wàllu ñam ci wàllu ñam mbokk yi ku ko ci yàlla man loo mu ne ah waaye yéen kii ci kii ceet la rek boo dogee benn kii rek benn mën a rek loolu doy na nit ñi waaye ah waaye yëfu yàq baaxul waay waaw ah, sunna bëggul yàq saxi sunna bëggul yàq waaye sunna bëgg na teraanga wala déet naam sunna tegu kenn lor na nga mënee céetaleel noona yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na céet gu xam ne deret tuuruwu ca lal ay basan sotti ay tàndarma sotti ay muudaake sotti ay sow wow yi ñuy wax ay aqiq yooyu moo am ci li ñu lal ñu bokk ci lekk ceetu sofiya bintu Uyayn noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam defe waaye nag ceetu Zeynabu bint Jahsh Anas radiyallahu anhu dafay wax ne yàpp ak mburu la yonent bi lexal nit ñi woote naa ba gisatuma ku ma woo ci Madina woote na ba gisatuma ci Madina ku ma woo yaa xi ci sunna la bokk ñu ngi ko dañ koy waaye saa yi sa poos nga yërëm rek ah bu fekkee da nga koy simplifier kay dàquloo simplifier yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abdurahman ibn Awf ba mu tekkee jabar bokk ci muhaajiruun yàggagul Madina lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ne awlim walaw bi céeta la doonte benn gàtt seelu ngeen baat bi doonte benn gàtt loolu mooy la ci suñ làng nu koy waxee au minimum daal da nga rendib gàtt ah au minimum da nga rendib gàtt loolu la ko yonent waxoon aw lim walaw bi saat ñu ñu ne ah dama yónnee ci marché ba ay kilo yàpp rek yaa su fekkee man nga ko soo manul nag dina tegul la lu manut loo manut waaye la nga man def ko benn ci wàllu ñam waaye itam ca woote ga nanga woote waaye nag xamal ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñam wi yées ci ñam yi mooy ñamu céet ndax dañ koy xañ ña ko soxla ba ñëw ba pare di ko wooxee ña am la leen dooy soxlawuñ foofu moom dafa bo dafa garaaw nañu moytu loolu waa ju xam ne mu ngi xiif ba ñëw raxasu ñu teg ndaw li mu bëgg a sukkare nga ne saa waay xaaral ba nit ñi lekk waay sëñ bi may ñu ba nit ñi lekk xanaa moom ci nit ñi ndax yëreem yu tilim rek mu mu woyof rek nga sëñ bi may ñu ba nit ñi lekk bo loolu moo yées loo ñamu ci kon ñu bàyyi xel loolu ki ñu woo farata ci moom mu wuy ji waxuma ne farata la mu lekk de su wuy jiwut day am bàkkaar waaye wuy ji gi lañ ko sant bu xasee yegg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne su fekkee dafa woor su ko neexee mu dog ci lekk bu dee kooru naafi la su ko neexee mu des ak kooram mu ñaan waaye nag wuy ji gi moom na ko def terewul nag am na ay mawaane am na ay mbir yuy tere nit ki wuy ji am na mooy yàlla yu fa nekk góor ñaa jigéen ñaa nga jaxasoo bu mu dem su fekkee man mucc ci jaxasoo góor ñi jigéen ñi jaxasoo googu lislaam xaraamal mënu caa mucc loolu gàllankoor la ci mu dem musique baa ngay rëkk foo toll di ko dégg wax naa nañu woy de waaye nañu woy itam nañu dëpp ay lekket tëgg wala nañu dëpp ay bool tëgg waaye bu mu demee sig de kon loola ci xaram la bokk ma wax leen mbokk yi ne abu ayub al ansaar yi ki nga xam ne bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee madina mooy njaati gi bi ko dalaloon këram ba ñuy defar nekk kër yonente bi sallallahu abu ayuba salim ibnu abdullah ibnu umar ibnu xataab mooy nettali mu ne damaa takk sama baay abdullah ibnu umar woona magi saxaaba ci sama céet ñam woo abu ayuba ansaari ca abu ayuba ñëw gis na ñu ngi def benn malaan ci mbiir bi ñu ngi sàng mbiir bi kon borom borom rido yi ci saar yi rido yi nga xam ne nekkul ci bunt nekkul ci fenêtre nañ déglu mu ne ñu ngi def ay ci maanaam ci euh, miir bi mu ne ma ñëw mu ñëw bu taxaw ci bunt bi ne ah ibnu omar yéen leen lu lu nga li leen yàlla xéwalee dangeen ngeen ci yegg di wodd xeer yi lii nag mu ne Salim mooy nett mu ne sama baay rus lool ne ko wallahi jigéen ñi rek jigéen ñee ma gañe rek mu ne ko su fekkoon doon naa ragal kenn ci jigéen ñi de ko gañe ragaluma ko woon ci yow du ma dugg seen néeg duma lekk seen ñam noonu la wàññeeku ñibbi mbokk yi xool leen loolu buñ koy comparer ak yeneen yi xew kon yi nga xam ne ay xaraam la yoo xam ne boo demee mënoo caa soppi dara gàllankoor la ci nga wuy ji seet nga wuy ji su fekkee gàllankoor yooyu amul nga wuy ji waaye nag xamal ne bokk na ci sunna nga ñaanal barke ñaari way dencante yi li mbokk yi gannaaw euh, duma wax euh, ci tënk waaye dama naan ci guddal euh, ci guddal mooy lu ñu waajaloon ci tomb bi ñu santoon ñu su fekkee ne am naa ci lu ma gàttañ lu euh, amaan na imaam alxasan dana ko mottali wala su fekkee ne am na laaj yu ci juddoo euh, mu am lu ñu fàttali insha allah ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mboolem ñi nga xam ne amaguñ soxna mu jàppandal leen soxna yu baax yu jullite sëy bu barkeel jigéen ñi nga xam ne amaguñ boromi kër yàlla subhaanahu wa jàppandal leen borom kër yu leen di dimbale ci seen diina di leen dimbale ci seen adduna ñu ànd ci jaamu yàlla euh, ñi nga xam ne itam am nañuy soxna waaye jëlaguñu seen wàll ci société bi ñoom itam yàlla may leen fit ba lépp li seen wàll ci société bi ñu jël ko luy loolu ah, xam ngeen ne société sénégalaise euh, li ñu statistiques yi xamal mooy ne ñeenti sénégalais yu nekk benn góor moo ca am ñett yi jigéen lañ bi maanaa kon lay tax góor gu nekk jël wàllam ci société bi mooy lu bon bon mu am ah ñett mu am ñett euh, bu amee ñeent moom dafa am kenn ku mu wàññil benn moo tax ma ne ñu jot a am kon yàlla na leen yàlla may fit ba ñu jël seen wàll ci société bi ndax lan ndax ñaari mbir ndax société bi laab ñaareel ba xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yokku xeetu yonent bi kat buñ koy séentoo yokk ci doom yi juddoo manoon am lu dul góor ñi takk fit jigéen ñi yaatu dënn jigéen ju nekk na xool boppam su fekkoon moom dafa bokk ci ñi nekk ci rang gi duggaguñ fenn na muy bëggee ñu yaatal ko na yaatalee ñeneen ñi noonu ndax kat laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li maa yuhibbu li nafsi kenn ci yéen mu bëggal boppam mu bëggal mbokkam li mu bëggal boppam kon yàlla xéwal na leen ay góor yu ngeen suturlawoo yaatal leen dënn ak kër yi ndax seen mbokk yi ñoom it ñu am ñu leen suturaal ndax société bi laab benn góor kat biñ ne diw sàngam xanaa kër gi dafa xat mu ne déet wallaay xol yee xat kay waaye dana kër yaa ngi ne yàmbalan dënn yi dënn jigéen ñi moo xat waaye kër yi moom mu ngi ne yàmbalan kon nag nañu ubbi seen morom yi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanahu wa taala bim ñu defalee tawfiq ci ñu mën a fekkee waxtaan bu matali bi sunu imaam Abu Bakar defal ñu yal na yàlla subhaanahu wa ko bokk na rekk rek euh, luñ mën a dégg ci waxtaanam daanika mi ngi doon firi la sunu borom di wax ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana nekk na ci yeneen yonent yàlla bi royukaay bu rafet ñeel leen ci képp ko xam ni nii bëgg na ngërëmal yàlla ak texeg yowmal qiyaama conférence bi daanaka mi ngi ko tënk ci lam ko tudde ni assunanu wal bidau fil xutba lan mooy sunna ak bidaa ci labat soxna na am sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam rek la yàlla yónni woon muy exemple bu rafet ba matale sunu boroom ni wal yaxdari allazina yuxaalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ña nga xam ne dañoo uute ak moom nañ ragal fitna dal leen moo tax lépp loo xam ne aju ci wàllu labat googu day wax ne nii la ko sunna defee waaye fu mu waxee fu safaanoog sunna rek fitna moo ca tegu lool it di wane ni yéen ndaw ñi war ngeen a jàng sunna bu baax ca jéego bu am solo mooy la nga xam ni moom mooy seen ah, jataayu tey bi lim ñi wax bokk na léppam am na solo waaye it am na loo xam ne wolof fii dañ koy wax nee nañ sëy lu ko tas nuyoo woon na ca njëlbeen dañ koo fayul labat boobu wax na ci lu am solo rawatina ci wàllu ndaw ñi mooy lu jëm ci wàllu mbëggeel boobu ngalla waay bul takk koo xam ne xamantewu leen gisoo ko ba bëgg ko waaye ndaw si it buñ ko may mukk koo xam ne xamu ko ba xam ki muy nar a àndal mooy kan waaye it lu am solo ca mu insiste ci lool mooy wàllu waajur yi nañ fexe ba sëy bu ñuy dugg fekk suñuy waajur ñoo ca d'accord waajur yi buñ d'accordul ci sëy bi duñ ñaan mukk barke am ci te am na benn philosophe bu mag bu nekkoon Sénégal ñu koy wax ci barna dañ ne keroog bi ko doom ji nii dama bëgg soxna def na ko waa baax na daal di koy woo ci yoote doonte ne lislaam daganulul ab yoote waaye ba mu ko nee tàpp ci point damier bi na ko soxna doom ji na ko tàpp na ko goro mu daal di koy tàpp na ko naxlan mu na ko tàpp na ko keroog pay li ma mooy keroog bi problème di am ab sëy munta ñàkk problème su doonte ne tey yow ca am na loo xam ni imaam it waroon na euh, euh, li mu wax ni doomu aadama munta matal lépp wala fi dañ naan li nekk ci nag bi yépp xajul ci cin bi waaye am na lu am solo it mooy ku góor ki ka ngay dem di takk ngal la waaye soo mënee say woy jur ànd ci xamal ne loolu mooy la gën naam imam ah insisté wu ci ndax say waajur yu góor bu ñu àndul cib sayit yow boo tekkee ne ko lu araam waaye def nga loo xam ne nii comme ndaw si da ko koo a jël dugal ko sa biir famille fexeel ba takk koo xam ne say waajur dañ koo bëgg ndax bu dee ne say waajur bëgguñu problème problème ba ngeen jëkk am bu ngeen di xeex kenn du leen àtte am déet mu ngi noonu kenn du àtte yaay ju bëggul bàyyi bëggul nga dem takk indi boo xeex kenn du àtte amma wala fi dañ naan peccum gone bu neexee magatee ca mbagg ya bu dee ne nag sëy sëy bi waajur yi dañu cee bëgg ba problème amee it sa baay dee taxaw wala sa yaay taxaw amma bu dee bëgguñu ko ñi ngi yàkkamte problème am ba mu génn kër gi kon fexeel ba takk koo xam ne say waajur bëgg nañ ko takk koo xam ne ay waajuram d'accord ñu moom la ci imam wax doy na sëkk dañu lay wax sëy boobu dafa doon lu xaraam su dee ne waajur fa mu teg ñàkk laa may sox euh, doom bi da ko teg ci lu sharia nangu loolu kon daal mbir la boo xam ne nii lañ góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax wax na it ci wàllu ñaari jéggi dayo yi mooy ba ñu waxee ci takk koo xam ne xamante leen noonu it la ñuy bàyyiloo xel li xew tey mooy dama la bëgg bëgg naa la léegi nag dañuy jàng nañ jàng ba pare bu ko defee ñu jàpp ni diw diwoo koy doxaan ku nekk rek am na droit seetaan leen fu leen neex ànd loolu nañu xam ne aussi wax na ci bu baax ne du lislaam am na lu mujj woon rek mooy ci wàllu question yi ñi nga xam ne ñoo organiser lii di débat bi dafa am ci yoon yu ñu ko tëral ñoom dañoo gis ne dañoo bëgg lépp tege ci xam-xam dara bañ cee doon loo xam ne luy ah jàddu yoon la moo taxoon ñu ne dañuy woo sunu mbokk imam Aboubacar mu defal ñu benn wàll ci nu ñuy labete soxnaak nu ñuy céetale léegi incha allah bu trois heures jotee sunu mbokk bii di imam Gallaajo mi ngi ci jàkka bi imam Ousmane Gallaajo dana ñëw defal ñu ab sëy nuñ ko war a tëralee mboolem ñiy fekkee waxtaan bi question bu ñu am nañ ko bind ci kayit bu ñu ko mënta bind am na mbokk yi nekk fële ñu dem wax leen ko daañ ko bind ci kayit bu soobee yàlla bu dee ne julli nañ tàkkusaan ba pare kii di docteur Mouhamed loo dana ñëw fii daal di gaaral lépp loo xam ne question la yu jotoon mu daal di koy tontu firiwul ne imaam yi fi nekk dañoo mënta tontu question yi waaye dañ cee bëgg ak yaatu bëgg ci ak loo xam ne nii doomu aadama dafa bëgg coppite loolu rek moo tax waaye mboolem thème bi yépp ak question yépp ñooñu ñu wax ñépp ku ne mënoon naa taxawee commencement ba fin di jot waaye pour bëgg ndaw ñi gën cee mën a jàpp la nga xam ne moom lañ ciy def ngir it nit ñi bañ a tàyyi ngir it mu gën a dugg ci xel yi ndox ñu séddale ko noonu la nga xam ne mooy ñetti cër kon dama damay tëje rek ci Ah, delloo sama mbokk bi nga xam ne moo yor kaddu ndaw ñi moo daal di am kàddu yu mu yu mu ko tëjee ah waaw wala bu dee ne loolu amu ci ñi nga xam ne incha allah daañ waajal léegi jëm ci wàllu taxawul julli gi ak leneen suñ ci jógee ah, gannaaw loolu trois heures daañ fi dajawaat bala maa tëjit danaa wax comme imam xëy na mi ngi doon xaar ay question yoo xam ne dana ñëw ca ñoom ni lañ ko tërali ma delloo ko tuddi kàddu gi mu daal di tëj waxtaanam ci euh, xëy na dénkaane bu mujj mën na am mi ngi doon yaakaar question yi ba baa trois heures de jot ñu daje fi ak sunu imam Cheikh Ousmane bismillah waaw wallahi yaakaar naa ne dénkaane bi du gudd xanaa dama koy dooleel bu baax baax ci kàddu gi mu wax Euh, ci wàllu déggu waay jur yi euh, man ndaw ñi may laaj laaj yu mel noonu dafa am ci ma bëggante te ay waajuram d'accord nañu waaye man samay waajur ñoom ñoo opposé ñoo ci àndut euh, dama leen di wax ne l'islam tënkut ku góor ci ne du dagan mu am jabar te waajuram àndu ca comme ni mu tënkee ku jigéen ne du dagan mu am jëkkër te waajuram àndu ca waaye nag déggal sa waajur sas la ci lislaam naka noonu sampee sa kër ci noonu say waajur yaakaar naa ne kuy xaar barke du ko def sampee sa kër xeer wu njëkk bi ngay sampee sa kër yaa ngi ko sampee ci tàngal sa xoli waajur yaakaar naa ne borom xel du ko def kon sa waajur ànduñ ci lu tax ànduñ ci danañ la danañ la ko wax benn ci ñaari def ko fexeel di leen teral di ser di seral seen xol bañ ruus la waajur day rus doom de am na teraanga yoo yegg ak sa waajur loo leen ànd ca ndax dañ lay ruus bu boobaa la ngay bëgg mën a nekk wala loolu amut yow am nga yenn ay condition rek yu bëgg ci jabar yu xam ne lu néew néew du ci ñàkk nga ne bàyyi kon man de jabar mu mel nangam mu mel nangam mu nangu nangam ak nangam laa ci bëgg loolu su amee ci biir mbokk gi ngay wax foo ko fi gis wax ma foo ko wax ma bu boobaa déggoo dana am tas kër ga ma doon bañ ca kërum ndaw si bëgg a sa kër tas kërum ndaw si ci noonale noonu nga war a dawee itam sampee sa kër tas sa kër bàyyi kon fexeel sa déggoog ndaw si dolleeku ci déggoogu ndaw si déggoog waajuram dolleeku ci déggoogu ndaw si déggoog say waajur yow itam li danaa ko gën a dooleel yëg ne daal su fekkee ne jigéen ji dañoo ànd bëgg ànd ngir lislaam bëgg ànd ngir dund bu sax kon àndam googa dafa war a jokk ci ànd yi fi nekkoon waaye ànd ak moom warta teqale ànd yi fi nekkoon wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahuma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk